Zulfal wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rakaani fajri xayru mina dunya barki borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi baaxoo di seetaan seen télévision Majmahun Nurayni TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital nuyoo bi si turu xalif général des mourides di cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké suñ borom yagal ko fi lool te mu ànd ak wér waaye itam di ziar ki nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall di sëñ Amdi Fall moom suñ Modou Menda suñ borom yàggal ko fi te mu ànd ak wér di ñaanal ki nga xam ne mooy Serigne Saliou ture suñ borom yàgg ko ay leer waaye itam di nuyu ki nga xam ne mooy jorinu mbooloom Majmahun Nurayni fédération bi nga xam ne moo lëkkale mboolem élève ak étudiant fii ci Thiès di Serigne Saliou Fall suñu borom yokk ko ay kàttan ba liggéey bi fu mu bëgg a àgg rek moo àggale ko fa. kon mbokk yi suñ jotaay bi bokk si jotaay yi nga xam ne ma Majmahun Nurayni TV yàgg na ko amal si wàccaay ziar ñu fas yéene amal le deux juin incha allah rabbi ci kanamu xalif général des Mourides. ñu fas yéene see ànd ak yéen si thème bu am solo bi di rooru soxna daara yi si wàccaay kon xam naa damay daal di bàyyi sama invité yi ñu daal di nuyoo rek laataa ñuy soobu si liggéey bi bisimilah soxna Ndeye. bisimilah. inna waliya barke borom Tuuba ñu ziyaar ñëpp di si jiital xalifa Serigne Touba fi nekk muy Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi ba mu àggale naa li di ziyaar xalifa Baye tamit di ziyaar. njabootu suñu Saliou Touré gi fi nekk di ñaan tamit bay am sax yàlla may ko ba mu àggale moom tamit lim lim suma si yoon si yoonu maamam bi di jaarewaat ñi ma bokkal plateau bi. Euh, kon xam naa dañuy jox soxna Ndeye rek mu daal di nuyoo moom itam balaa ñuy commencé bismillah. bismillah baag boobu tubaab maa ngi leen nuyu ñëpp di leen ziar leen jox seen wàccuwaay. di do bu baax di am mbégte lool soxna Ndeye Ndiaye si invitation bi. macha allah ginnaaw bu ñu nuyoowee ba noppi rek ñu leen di fàttali itam soxna Ndeye bi moom mooy joriñu lycée Ahmadou ak Seck. ki tamit nekk jëwriñu UIT euh, di université Iba Der Thiam bokk ci ñi nga xamante ne dañoo bokk ci fédération bi kon euh, so dañuy daal di tàmbalee rek si bayit ba nga xamante ne Serigne Touba dañ ko ko soxna Penda Diop muy bi mu naan ko xaleeki bi sabri wa takkuwa rabbiki fi sirri wal jahri fal yaxfir laki euh, muy mel daf ko dénkoon ni ko yow soxna si na nga jël muñ ak ragal yàlla def ko sa weeruwaay nga def ko si lu nëbb ak lu feeñ te bul ko def yëfi ngistal soxna Ndeye loolu noonu boo ko jàngatee ani ban taxawaay la la soxna si ne si daara ji am si liggéey sëriñ bi. waaw bisimilah di rafetlu euh, sa question bi soxna Ndeye ndax day mel ni soxna soxna soxna bi nekk si si daara comme taxawaay bi si góor yàlla am moom la si war a am. bu ko si ëppalewu sax ndax boo boo déggee ñu naan jigéen mooy fondement lu si bari da si da si da si joué lu bari ndax soxna bu nekkee si daara mën nañ koo mën nañ koo xoolee nit koo xamante ni man moom mën nay lay defar comme aussi tamit mën lay moom mën na nekk ku yàq léegi nag bu fekkee da nekk si soxna si si si daara nga ne soxnaam noonu lay. bàyyiloo xel lu bari ndax soxna am na si yu bari yoo xamante ni du ko yomb kon bu demee ba jaayante ba dogu ni day liggéey sëñ bi surtout si milieu bi ñu nekk day nekk loo xamante nii day day day nekk charge si moom bu ko defee nag moom comme yi comme comme comme yi si bëri si téere yi sëñ bi bind lu mel si lu si mel ni jawaabu boobu noonu day mel ni buñ koy nafar ñuy xam tamit lu muy tekki lu si bari mën nañoo bañ a ump su suñu doxalin si daara yi ak yeneen téere waaw. kàddu yi rafet na lool xam naa dañu daal ñëw si ki nga xam ne mooy soxna Ndeye Sarr rek di ko euh, xamal ne soxna si jaayante bi jaayante bi entre daara ji ak ecole bi. Euh, muy mel ne ak ban ban soñño aussi ngay am si loolu si ñi nga xamante ne bëgg nañu tàbbi si si si daara ji wante toujours dañuy def seen xel que ni mënuñu boole di jàngi en même temps di dem daara bi ban soññee nga am si loolu. waaw question boobu nag fi may tàmbalee rek mooy day dama naan bi ngay jug di jàngi maanaam jàng ba am bag ñu orienté la nga dem université ab njàng moo la fa yóbbu woon waaye du woon pour dem bokk daayira maanaam daje bi ñu fa daje moo sabab liggéey bi maanaam ñu dajaloo di di liggéeyal sëriñ bi ndax li sëriñ bi doon wax naan am mbooloom fu ñu daje moom faaw dañ koy liggéeyal kon loolu moo sabab daara ji loolu nag dañ jiital saa su ne moo tax maanaam saa su ne rek daray jàng bi du yàq daray liggéey bi daray liggéey bi itam lu yàq daray jàng bi leen lu ci nekk dangay organiser wu maanaam waxtu jëmmal daal ji su jotee ñu jëmmal ko waxtu jàng jotee tamit ñu def ko maanaam su may jël exemple tey ji ñun ñu ne si école yi genre ñu ngi jàng plus de dix dix matière te maanaam leen lu ci nekk ñu ngi organiser wu benn bu ci ne waxtu bu jotee ñu jàng ko yaakaar naa liggéey bi nag ak école bi noonu rek la demee da ngay organiser ba leen lu si nekk su waxtoom jotee rek nga def ko te du la yàqal dara. macha allah kàddu yi am na solo organiser wu boo waree dem si daara ja nga dem si daara ja soo waree dem si école ba aussi nga dem si école ba te du la yàqal dara en plus daf lay gën a motiver sax ngay jàng n'est-ce pas. Euh, kon euh, soññee bi am na solo lool ñu ñëwaat si ki nga xam ne mooy soxna Ndeye rek soxna si ñuy gis que ni boo tàbbee si liggéey bi. commencé muuru rek da ngay commencé di tuddee sa bopp saalixaat man saalixaat laa euh, yan critère dëgg-dëgg la soxna war a am bañ mën ko woowee saalixaat waaw critères yi soxna soxna si war a am ba war a war a tuddee boppam saalixaat euh, mu ngi mel ni soxna si yow yaa yow yaa comme li ma wax sànq rek yow yaa jaayante ba ne na ngay liggéeyee sëñ bi kon am na si yu bari yoo xamante ni war nga koy jombale sa bopp am na yu si bëri war nga koy jombale sa bopp. am na yu si bëri war nañ ko jombale suñ bopp maanaam moo saalixaat bi. maanaam moo moo saalixaat bi du loo xamante ni danga koy xëcc. di ko ñoodi ndax euh, ñu si bari sama mboq yi ñoom jàpp nañ ne bu ñu bu ñu muuroo rek euh, ñoom pare nañ te daanaka li ñuy wooyee dëgg saalixaat ñoom jëfewuñu ko jëfewuñu ko doxewuñu ko tamit ndax saalixaat am na am na am na critères yoo xamante ni. Euh, ñoo ngi koy taamu si moom te loo jëru sax moom muy muy muy muy waxal boppam ne moom saalixaat la day bàyyi ba nit yi waxal ko boppam ndax yaakaar naa loolu foofu mooy gën a amee sens euh, waaw lu si mel ni nga nga nekk si daara ngay ngay ngay ngay nafar wala ngay jàng xasida di ko jàng si anim anam bu bu wér te tegu te bañ see puukaréew bañ see ay ngistal Euh, surtout di si jaamu yàlla googu noonu nga koy nga koy def surtout boo wéetee waaye di bàyyi ba gis nit ñi jël sa benn bayit wala surtout comme ñeneen ñi ni ñuy def rek di nekk di si sinap bi wala si tiktok bi jël seen benn bayit daal di muuru et tout da njëkk a xool sax seen muuraay sax mu njëkk a tëguwul tëguwul tëguwul joxut lool ndax sama mbokk yi dañuy jël seen kori duñ seen karaw yi ñu leen njëkk a muurloo sax ñoom respecté wuñu ko bay wax saalixaat parce que dañuy nekk naan dañuy béy béy bi xeer et tout ba pare anam yi ñuy sol ba pare di tuddi seen bopp ay ay yenn tur yi ay soxna may si teg ay tur xasida wala wala wala wala soxna may saali wala et tout noonu te loolu daanaka soppuñu ko si ab soxna ndaxte soxna si ne si yoon bi sëñ bi sànq li nga wax si jawaabu bi rek euh, daf ne ngeen di nëbbatu di muur seeni cër. di suufee seen i kàddu et yooyu noonu te léegi daanaka ñoo ngi gis soxna yi di def def loo xamante ni sax bokkul si yoon bi euh, dañuy dañoo nekk si yoon bi te da ngay dem ba dootoo xam sax ñoom si yoon bi ñoom sëñ bi lañ si wut wala leneen lañ siy wut comme genre ay buzz yooyu noonu di bëgg ay follow wala dara wala comme ñi nga xamante ni sax amuñu possibilité pour di génn si ay TikTok yooyu noonu dañuy nekk si biir daara ji tamit tamit di bëgg benn grandeur boo xamante ni tamit. Euh, en loolu loolu bëggee bëggewuñ ko noonu fu ñu toll war nañuy mën di sell suñuy cër di muuru muur gu muur gu teg gu yaar gu jaar yoon di sol tamit loo xamante ni du du transparent tamit wala muy kii daal col colug saalixaat daal yàpp naa ne ak ak ak jikko jeeg jëfin yi du loo xamante nii danga koy danga koy wax dañ la koy waxal yu si bëri ñu koy mën di moytu ndax yoon bi tamit euh, jëf lu baax moo moo mel noonu moo yombul ni mu ñàkkee yomb noonu nag dañuy xoolaat bu baax di gëstu téere yi sëñ bi bind na amaana bu fekkee ne ñun ñoo ngi jàng xasida euh, te en fait xamuñu lu muy tekki li si muy waral lu bëri ñun ñu koy réeram bi di ko def comme jawaab boobu buñ ko jàngoon tekki ko xam ko am na yu bëri yoo xamante ni ñun ñu nga ay murit lañ te nekk ay soxna nekk ay ndaw tamit euh, yu bëri yoo xamante ni duñ ko def. comme li ñuy wax rek sooy wut royukaay jarul ngay wëri feneen mën nga ñëw tuuti ñu nafaral la si soxna jaar. waaw mën nga ñëw ñu nafaral si soxna jaara ndax moom dundam en fait 33 ans la la dund te lu si bëri réaliser na ko si ba mu indi ñu si suñu euh, ndam li nga ndam li nga xamante ni doomam ju baax ji defal nañ ko ak taw feex ndax dañuy wax toujours ne ki la defal loo xamante ni ñëpp teg nañ seen bët war nga ko sant tamit ba <coughs> ku añu nopp dégg ko mais tamit ñun question la dañuy dañuy dañuy dem di ndax ñun li ñu sonal lenn la mooy culture jàmbur yi ñuy sonal moo ñu sonal reyukaay moo ngi fii nii muy soxna jaara te lu si bëri man daf may maa ngi daf may marqué mooy <coughs> dun dundeelu soxna Aysatu Gaawaan moom tamit macha allah si yoon bi si lim su loon jëf si ay yar ak defaraate ak ak yu bari ñooñ en fait bu ñu leen doon roy euh, yu si bëri mën nañ mën nañ si bañ a am ay ay ay ay problème wala ay ay jixi jaar macha allah kàddu rafet na lool ba tey bu ñu jëlee saalixaat bi rek comme naka euh, sëñ Basiiru taggee woon soxna jaaro ci minal baay xadim bim naan ko maam bu sa kaanu saali xatan ca ñu tedd ña ca ñu tedd ña la bokk maanaam tedd sell baax def naa mu saali xaat bi moom loolu lay gën a signifié kon ñu fesee ne tedd rek sell te baax pour mën leen a gën a roy euh, ba tey ñu ñëw si soxna Ndey euh, ngay gis ni fédération bi ñun presque ñun ñëpp ay élèves lañ ak étudiants euh, lu si ëpp si ñun élèves lañ wala étudiants dañuy faral di ne si daara ji faral di ne si école bi aussi yan teggin lañ mën a sàmmanteel suñu mbokk euh, suñu mbokk yi ak suñu mbokk jullit yi ba si suñu prof yi. soxna waaw yaakaar naa ne bu ma jëlee suñu digganteek suñu prof am na ay teggin yoo xamante ne si moom lañu war a làmboo ñu xam ne professeur bi. daa bàyyi yitteem yëpp ngir ñëw di jox xam-xam kon ñu nit lu tax ñëw ba suñu yitte yëpp ngir dem jariñoo xam-xam boobu nga xam ne moom la ñuy jox te boole kaag nag bépp dégg ni nga xamante ni si nii moom la laaj ñu xam ne prof bi maanaam mënuñ ko jàppee comme suñu waajur bi nga xamante ne moom lañ bàyyi suñu kër nga xam ne kon respect bi ñu leen jox. maanaam moom lañ warloo ak ñoom su ma jëlee nag suñ digganteeg suñ mbokk taalibe yi tamit ñooyam rek kenn ku ci nekk nga won ko yar ak jàppee ko ni sa mag wala ni sa rakk waaw suñ ko defee daal yaakaar naa ni duñ juum suñ digganteeg suñ prof yi nag yaakaar naa ni liñ naan maanaam fi mu nit ki mënoo jariñu si moom feeg maanaam làmboo ak ay déggin te maanaam ku sàq xam-xam da ngaa war di toroxlu sa digganteeg nga xamante ni moom moo lay jox xam-xam. foofu waxi Serigne Touba yi day ñëw rek bam naan teggin lum la mayo rek du la ko xañ euh, kàddu yi am na solo macha allah ñu gis ni yéen ay jóorin ngeen ci seen euh, daara yi ngeen féete en tant que jóorin jiite côté soxna yi. ani ban yan matuwaay ngeen jël des fois phénomènes yi ngeen gis ci côté soxna yi. li phénomènes yi ñu jànkoonte ci côté soxna yi xam nga dari njiit moom dafa yombul te daa nekk loo xamante ni tamit mënut ñàkk lu caagante tamit ne suñu pasteef la walla suñu mbubb mu rëy wala sax ab judd moo tax mu teg ñu fa loolu yëpp ay tawfeexi sëñ bi la. léegi nag bu bu yàlla dogalee nag euh, loolu am ba bañ tàbb la nga jiite am na yu si bari li lay war rek mooy moo mooy war muy datu yëpp mooy di sàmmonteeg sa bopp di sàmmonteeg sa ay mbokki taalibe ak ñépp ndax liggéey bi euh, daf daf koy laaj surtout lu jëm si sëñ bi muy di di di laay biiranteeg soxna yi di leen jiim di di xool fan la ay faay nekke nga nga jim saa def ay ay ay ay gëstu ba ba ma mën a saafara lool ndax àndub jigéen moom mel noonu bu nekkul tamit si daayira yi tamit di nekk tamit si yeneen mbooloo yi tamit surtout loo xamante ni da ngeen faa daje ne da ngeen wut yàlla kon lu leen di boole day yomb ndax ñun toujours dañuy dañuy dañuy mbir loo xamante ni dañ naan sëñ bi ku nekk sëñ bi rek am na yoo xamante ni te lay loolu te dañoo war di comprendre ne ñun seytaane sëñ bi la mënul dara mais ñun ñuy bàbbeeku jëm sëñ bi ñun la seytaane gën a soxal te lu si bëri dañ koy war di jaayanteeg suñ bopp bu fekkee da dem ba ne da ngaa jaayante di liggéey sëñ bi ñu bëri da koy jaayanteeg sa bopp euh, bañ a bañ a rëy ndax daanaka mu jigéen ak jigéen moom pour jiite moom day nekk loo xamante ni lu lu doy waar la waaye nag euh, da ngay xam ne liggéey la rek bu la sëñ bi bu la sëñ bi teg. ko defee nag lu si bëri charge yu bëri mën nga see mën na laa xaw a noppal boo xamee ne daal loo xamante ni sa charge charge buñ charge buñ la teg la léegi nag lu si bëri nag soxna yi daanaka même ni ànd bi di naqaree tamit dañuy dañuy dañuy dañuy laayante biir ndax daanaka tanantewuñu euh, comme que dañoo ñëw ñëpp si école ba doon fa sàkku si xam-xamu nasaraan yàlla suturaañu nag bañ jéem ne dañuy liggéeyee sëñ bi kon daanaka foofu noonu dina dina dina am ay problème mais lépp sëñ bi moo koy moo koy liwaat ndax ay mbiram moom euh, duñ si leen duñ si leen dañuy góorgóorlu rek mu mu jàppandal lépp ñoo ci si bu baax tamit si soxna yi macha allah am nañ ay am nañ dégg-dégg te macha allah loo leen wax tamit dinañ xam ne en fait du seen moroomu jigéen moo leen koy wax dañuy jàpp ne sëñ bi moo moo yabale ki ko wax rek ñu fexe koo jëfee noonu rek. macha allah kàddu yi am na solo kon ñu fexe ko jëfee noonu rek ci côté soxna yi ba tey ñu ñëwaat si soxna Ndeye euh, en tant que tant que joorin yan rôle moo leen di moo xaar si si wàccaay wi yan rôle ngeen lan mooy seen rôle daal en tant que joorin si si côté daara ji ak euh, lan moo leen di xaar aussi. koo xam ne maanaam ab mbooloo ñoo ko tënk jiital ko topp seen ginnaaw léegi kooku nag bi ñu jiitu nag mooy maanaam war na am ay yare ak ay teggin yaakaar naa lool moom bu ko dimbee ci bi dara du fa desati nekk nit ko xamante nii day doon roykaay maanaam mboolem soññe boo xam da koy def wala lu tënk ci doxalin moom mu jiitu ja ba mbooloo buñ tourné gis ko. xam ne moom ci lool la nekk maanaam ñu mën ko ci topp ku nekk rek am na ko la jiital ngeen fas yéene topp rek kan teg ca kanam ba tey soxna Ndeye ñu gis ni ñu ngi amal ñu ngi amal ziar le 2 le juin incha allah rabbi muy fédération Majmahun Nurayni ziar bi mu fas yéene amal ci kanamu xalif général des Mourides ñu naka ngeen di waajee loolu wàccaay bi naka ngeen koy waajee si seen côté daara. bu fekkee danga danga jug pour ziyaara ji ki nga yaakaar moom daanaka lu ci mel ni àddee ji ak pas-pas yi dañ siy soñee bu baax ndax ziyaar moom mënta mënta am sans àddee ak laayante bi tamit ci Pastef gi macha allah ñoo ngi si ñoo ngi si ñoo ngi si bu baax ñoo ngi soññee si soxna yi di waxtaan ak ñoom tamit ak si ñëpp daal. Euh, loo xamante ni mooy addee ji ñoo ngi si ñoo ngi soññee lu si mel ni si message yi euh, wala sax appel euh, daanaka soxna yi tamit ñoo ngi góorgóorlu ak ak ñëpp ñoo ngi góorgóorlu bu baax si sas bi ndax xam nañ ne sas moom mooy mooy mooy mooy doxal mooy mooy doxal ziar lu jëm si tamit si Pastef gi tamit ñoo ngi si soññee bu baax ndax Pastef moom mënta weesu li nga xamante ni daara ji tënk na ko nga nga dox si si tënkin boobu mu ko tënkee. du aajowul ñu lay séen ngay takk ndigg ak yu si aajo euh, pour ñu wane sa Pastef Pastef dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Pastef mooy li nga xamante ni daara ji dënk na ko nga fexe jëmmal loolu waaw nga jëmmal ko bu baax si boo demee si barab ba laayante biir ak ñoom ndax barab bi war nañ kaa mën a wormaal ndax bu fekkee da ngay fekk ci sa sëriñ am na yu si bëri mun waru la léegi nag Pastef gi ñoo si di soññee si soxna yi pour ñuy dugg si su commission yi di waxtaan ak ñoom ku si nekk si sous commission ba nga nekk euh, boo demee am na ku la fa jiitu lam lam lam lay loo nga nekk sax nga xam ne lépp si sëñ bi la te ñu ñëpp moo ñu tax a jóg comme que chaque année day am loo xamante ni cause finale la mu nekk finalité te mooy ziar bi ñoo moo tax ñu si soññee bu baax di si waxtaan ak soxna yi euh, loo xamante ni ndax soxna daanaka moom mën naa yàq lu ne que mën naa defal lu ne léegi léegi nag si ñoom la ñuy basé wu profité si ñoom pour base bi mën a taxaw ba ñoom ñu mën a defar lu bari si ziar bi ba nga xamante ni dinañ mën a warmaal barab ba warmaal ko bu baax euh, waaw. wax nga ko sànq si say biir wax maanaam euh, ziar euh, addee ji moo ko moo ko moo ko jëmbat maanaam mooy farata ji des fois doo leen jànkonteel des fois dañuy faral di gis si daara yi soxna yi sama mbokk soxna yi ma commencé ko si man. otesu otesu yére bi ñuy sol lañuy gën a jox gëdd moom lañuy def farata ji que àddiyee ji war a jébbale sëriñ bi loolu tamit ban gis ban gis-gis nga si am ak lan nga leen si soññi. waaw loolu moom ñàkk xam na rek ndax bu fekkee dangaa jug comme sànq ni ma ko waxee rek da ngay ziyaare si sëriñ yow lijjantoo àddiyee bi nga ko mën a jox loolu di lijjanti yow loo mën a sañsee foofu daanaka ay puuk rek ay wane wook ngistal dafay dafay feeñ. te daanaka loolu duñ ko soxla tamit si si wàll yu mel noonu euh, soxna yi tamit ñoo baaxoo noonu dañoo bëgg ay affaire de sañse ak yooyu noonu loolu mu mënta si mënta ñàkk waaye nag yoon bi daanaka day foo xamante ni dafay toll euh, loolu duñ ko mën a war a mën a jiital euh, soxna yi noonu la ñuy def moom wax dëgg yàlla fi noonu la def mais tey tam ñun tam dañ si dañ si waxtaan ak ñoom dañ koy bañ ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoree wàllum otees yi dañ laan leen carrément ku fi joxe otees te joxe goo sas dañuy commu dañu am communication ak ñoom ku fi joxe hôtesse soo joxee goo sas na ko ko signalé xaalisu hôtesse am boobu la ñuy jël dugg ko si sas bi ba mat même si fédération bu fekkee dafa bokk si su commission yi di fàggu ay lu mel ni ay julet wala ay badge yooyu noonu tamit dañuy communiquer ak ñoom su mel ni sëñ sëñ Lamine dama koy woo ne ko ku fi joxe lu wàllum ay tam bokk si commission yi. Euh, ay xaalis yu gilet wala badge na ko si signalé parce que bu joxewul fii àddiyee mënugul dugg foofu noonu te comme que dañoo dañoo jaayante lépp si jaayante rek ne dañuy liggéey sëñ bi lii nekk farata nañ koy jiital ba pare lu si topp mën see topp ndax balaa balaa bi ñi si egli exiger tamit daanaka xaw naa mën a wàññi penn ndax bu fekkutoon ne kii dañoo dañoo exiger balaa yi te balaa moom nu mel nag baax na mais niñ koy exiger. xaw naa wàññi tuuti ndax wàññi wàññi na dépense bi ndax nim ko wàññee mooy comme ça nit ki sol lu balaa moroomam solu lu balaa daanaka loolu mën na kaa wàññi ndax mën nañoo jël benn tissu bu oyof rek ñu ñu kii ko ñu faagu ko pour mën kaa sol mais bu njëkk dañ daan def ay daanaka daal doo comprendre di si dépenser xaalis bu bari boo xamante ni ñoom lijjanteeguñ sax si àddee ji fi mu toll te loolu dañ kaa war di jiital bu baax a baax. waaw liggéey bi moom liggéey bi daa nekkul loo xamante ni ay kéem kàttan la kéem pasta pastef la mbenn mag doon na ko wax léegi pastef googu nag danga koy jox si addiya ji ba mu ba pare bu addiya ji ba pare nag leneen looy def nag moom lool sa mbir bopp la. maanaam ñu fonkaat eh, lii farata rek muy addiya ji eh, moom moo gën a nekk farata ji macha allah kàddu yi am na solo lool si soññee bi aussi. Euh, ñu gis ni soxna Ndeye ba tey si ziar bi ñoo ngi ci ngay gis nii des fois suñu demee ziar dina am soxna dina am mbooloo moo xamante ne duñu bokk si benn commission euh, donc ñooñu noonu lan moo leen war buñ bokkul si benn commission lan moo lan moo leen war si bis bi euh, pour pour mën a éviter jaabante beeg yooyu noonu. waaw pour ñi nga xamante ni bokkuñu si benn commission maanaam ñoom ñoo xam ne waajal nañ leen mbaar mi nga xamante ne mooy mbaaru soxna jaaram nga xam ne soxna yi fa la ñuy nekk képp koo xamante ne ko ci benn commission nga xam ne foofu nga war a nekk maanaam yow sa ziar foofu nga koy dundalee ci teewlu durus njàngum alxuraan wala wird waaye du di génn ci biti durus ba mu neex la génn ci biti di waxak ak fii kii wala kële maanaam yooyu sax day wàññi yu ziar bi. Ah, ñu xam ne daal ziar bi moo ñu fa yóbbu ñu def ci yitte képp koo xamante ne ko si benn commission nga ne ca mbaar ma maanaam teelu ziar bi foofu mbooleem jumtukaay yi maanaam mi ngi fa lu ci mel ni écran yi xam moo leen di tegal ñu suivre en direct li xew ci biir saal bi ak baafu yi maanaam yooyu yëpp pour mettre leen à l'aise ñu xam ne ñoom foofu mooy seen ziar. macha allah kàddu yi am na solo kon ñoo ko déggandoo rek bu ñu demee ba bés ba bu ñu amul commission ñu fas ne toog ca mbaar ma nga xamante ne bàyyil nañ ñu ko ngir mën a def ay dars wala di durus. kon mbokk internet yi ñu doon bàyyi xel ci seen à travers Majmahun Nurayni TV ci seen émission bi di plateau spécial wàccaay ziar ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax euh, ci topp geek safo gi di jaajëfal aussi sama mbokk soxna yi ma bokkaloon plateau bi di soxna Ndey féetee ca daara ba nga xamante ne mooy lycée Ahmadou Ndak Seck ak soxna Ndeye Sarr féetee ci daara bi nga xamante ne mooy UIT université Iba Der am di leen jaajëfal ci taxawaay bi ci soññee bu am solo bi ndax wax fa dëgg yàlla Serigne Touba defal nañu lépp kon ñun ñëw war a gën a farlu rek te jéem a xool naka la ñuy def ba mën a jariñu ci moom kon ñu ngi leen jox dig daje ba beneen incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf Saba